jërë ngeen euh, mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, li ngeen di topp sunu programme yi ci Mourides point info euh, di nuyu ñëpp tey siyaare ñëpp sunu nuyu ak sunu ziar ñu jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal gudd fan lool bu ànd ak wér-gu-yaram noonu it lañ koy ñaanal Serigne Moustapha Modou Mbenn Fall waaye di ñaanal képp kuy wax ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ngi lay nuyu te di la ñaanal ndam ak tawféex ñi ngeen ko baaxoo di ànd ak ñun ci événement yooyu nga xam te day faral di xew Euh, tey nag ñuy def spécial tabaski dem ci kilifa diine yi ak ci kilifa aada yi ngir euh, euh, def ay question réponse sunu diggante ak ñoom <clears throat> tey nag ñoo ngi fii ci xayra kër sëriñ Abdul Karim Mbàkke moom sëriñ Basiiru Mbàkke ñaaxeen moom sëriñ Moodu sa Jang moom sëñ Fàll moom Seexul Xaddim waaye itam di PDC diwlin Binta tey ñu am mbégte mu yaatu ngir dalal ko ci sunu jotaay sang bi ginnaaw bu la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 di ñaanal Cheikh mun taxa suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba li mun naa la liggéeyal Cheikhul Khadim lépp mu ànd ko ñun taalibe yi yëpp ba mottali ko nu kawe ak i xalaatam ak i bëgg di nuyu mbokk taalibe yëpp. macha allah euh, sëñ Abdou ñu ngi ci feetu tabaski mu nekk bis boo xam ne si mbégte ci jullit yi waaye bu nu delloo ci cosaan cosaan di tiisoon na lool ndax euh, maanaam diggal loo xam ne dafa jóge ci sunu borom la dem ci sunu mam euh, ibrahima ak sunu mam ismaila mu nek lo xamanteni ni ñun liñ ci jànge kon moy jëfé jëf jo wara jëf ci ndigal yemut ak mukk jëf joy jëf ci lu dul ndigal en tant que domi dara euh, en tant que kilifa bisu tabaski su ñëwé lan la lay euh waaw euh, comme ni ko rek day bu mag boo xam ne d'abord sunna la boo xam ne dañ koy rey ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon di lu war ci ñun mm-hmm. waaye ni ko waxee muy bis boo xam ne dafa fees dell ak ay duruus dafa fees dell ak ay enseignement fees dell ak ay jàngat mm-hmm. ñu mën caa li muy bari bari ñu mën ci taa tudd yenn lu ci mel ni as maanaam muñ ndax seydina ibrahima alayhi salaam ak doomam seydina ismaahil alayhima salaam taxawaay bi ñu taxaw ci dégg ndigal ci ñoom ñaar ñëpp mm-hmm. kenn ki dafa jot ndigal ndax dañ koy tudde gént waaye géntu yonante yi wax yu la mm-hmm. gént ñu wax la dangaa war a faat sa bakkanu doom joo xam ne da nga ko bëgg loolu mu sori ci sa xol nga jot ndigal loola exécuté ko waaye nga jàllale ko sa doom moom it contesté wut ne la yaa abati ifal ma tu'mar sa tajiduni insha allahu min asabirin loolu lu kawe la ku sa waajur wax ne dama jot ndigal ci suñ borom war laa rendi hmm. nga ne ko defal li ñu la digal kantaa man moom da ma fekk ma ma muñ insha allah loolu yaakaar naa jànkat gënu ko rëy liñ ci mën a jàngi mooy ñun nañ topp ndigal waaye ndigal yi nañu jaral lu ne ndigalul suñu boroom subhaanahu wa taala muy ndigalul yonte bi sallallahu alayhi wasallam suñu kilifa yu baax yi ñu topp itam ndigal loolu lañ ñu digal kon mën nañ wax ne seen ndigal seen ndigal ndigal suñu boroom la ndax du ñu digal dara loo xam ne dañ koo teg seen bakkan kon bis bi mën nañ cee jàng topp ndigal am na lu muy jariñ ndax léeg-léeg ñu digal la loo xam ne day mel nga dafa metti ci yow ay nang gi nga koy nangoo exécuter teel sun borom di musale ci metti wa lolu mo dal ismaïl alayhi salam ne mom nangu na ñu rendi ko ba sun borom xam ne na ndigal li waye sun borom wutal fa lanen nak mu mucc kon day am ñaari fay mm-hmm. top na ndigalul way jur ba nak mucc kon top ndigal lu am solo mm-hmm. ñu man ci jangay itam sacrifice nit ki lo bëgg da ngay ngay dox jëm ca laxasaa yu itam mu jaral la lu ne. Mhm. kon moo ko doon tënk daal. ci jànge muñ. Mhm. jànge ci topp ndigal. Mhm. ban njariñ la am. jànge ci itam respecté way jur respecté wayjur mhm. ban njëriñ la am. Mhm. Euh, macha allah muy euh, explication boo xam ne ndaw liy dégg te xamul dina tax kon mu gën a góorgóorlu ci euh, digal rawatina ki la war a digal digal la te muy ndigal lu gën ci boo ko defee. Mhm. ñu jàng ci kon ni kilifa ak borom kër danoo nuroo waaye duñu benn am na ñoo xam ne naam ay kilifa ay borom kër lañu waaye duñu ay kilifa ndax bëgg nañ ay détails bëgg na ni def jëf joo xamante si nii ki ngay woote woon ni maay kilifa sax maanaam jomb na loolu. ñenn ci ndaw ñi itam am nañ kilifa bëgg na nañu bëgg bëggu bëggatuñu am kilifa te dañ cee bëgg a yóbbu ñëpp nga xam ne dem na sax ba wàcc si ne ci suñu kër yi ba néew na looy dugg ci kër fekk fa genn kàddu goo xam ne mag jaa mag ja lay doon wala bàyyi ba ba bu nee def leen amul xalaat amul gestu mu mel ni dafa dem ba léegi dañoo commencé di am kirisu kirisu valeur ci wàllu kilifteef bu nu toll foofu en tant que doomi daal en tant que kilifa di ban message nga naa sa jëmee ko ci ndaw yi nga xam ne am nañ kilifteef kooku nature àdduna bi ci boppam ku fi bëgg a kilifa rek dafa mel ne kon da ngaa mu sosoo waaye ba mu tàmbalee ba léegi. Hmm. ci kilifteef lay dox ak ñu ñilif boo demee ci wàllu diine yàgg nañoo suñ borom yàgg naa yónni ab yonent ñëpp ne ko yawa mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen lépp mu seen kilifa ba ci niñ doxale sax saxaaba yi. kii dee jiitu kii kii jiitu kii kii jiitu kii kii def kii bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jugee ñoom ñëpp ay saxaaba la ñun waaye teewut Abu nga nam ca demee kon kilifteef moom lañ mooñaale àdduna bi ku koy weddi bëgg demal sa bopp xamoo ne àdduna bi tëddee ñaareel ba dafa am lu ñuy wax al mujtamaul insaani al aalami nit ñi ñoo soxlante te te bokkuñu ay martaba kon faaw nit ngay soxla keneen mu soxla keneen mu soxla keneen. Mhm. ñoo ñëpp nag dañuy am ay martaba foofu la kilifteef gi feeñ. suñu biir kilifay aada yi da ngay dégg ñaan la kii gouverner ak ñi gouverner. kon kon kon kilifteef. donte ki ni gouverner bu demee këram kilifa la fa. mënut a ñàkk. Mhm. te it ku la tee dégg ndigal ma ngi lay jox ndigal. <laughs> nga yëg ak nga ñàkk ko yëg. waaw dëgg la de. Eh, sëñ Bakary mën naa ñëw ne la bul top sa ndigalul kilifa ak diine mhm. nga ne ko waaw bu ginaaw suba mu wala ne dama la soxla ben réunion dama bëgg nga fotel diw nga ne nga genn leader bi joxe na ndigal kon loolu ndigal la loolu lepp kon day dugg ci biir kilifteef waaye mhm. kilifteef moom mënta ñàkk mhm. kilifteef guñ lal ci diine nag yaakaar naa genn genn ëpp ko solo ndax diine mooy def comportement ci nit ki loolu nag xaj na la cay jafe-jafe mooy ñàkk jël responsabilité ci kilifa crise yi am yëpp crise d'autorité yi am ci àdduna bi yëpp lekk lekk ci ñi ma ko sañe wax ñàkk jël responsabilité day feeñ ci taxaw nit ki nga xam ne yaa ko yilif waaye wan ko leadership mm-hmm. wan ko charisme mm-hmm. wan ko ne ko mën naa laa yilif ni koy wane nit nag mooy da koy bu dee di da nga koy dàq jaam yàlla da nga koy dàq jaamu yàlla. wala boo ko dàquti na la gis ca yoon wa. waaw loolu la arab di wax ne laa tanha an xuluqin wa taatiya mislahu aarun alayka ida faalta azimu di tere dara ba noppi. gën ko gën koo bëgg ñëpp wala day am jafe-jafe. moom daal da ngay fexe ba li nga koy tere. waaw moom la ca gis. waaw la nga koy digal na nga ko ca jiitu. waaw te it ndigal loolu. kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas. taamuruna bil maarufi wa tanhawna anil munkar la alxuraan wax kon. mbir mi day nek ci ci ci ñaari ñaari ñaari mbir kilifa gi xas mat kilifa nak mom. Mhm. yow ndaw li da nga ko war deglu déglu nga war deglu déglu à la lettre ndax du la lu amul lu amul ci yow kon bëgguma cee sori mhm. waye responsabilité dal xamna ne baxna na mhm. ci boo bëggee yilif nit ci ci lu am nga bayé ko te am jox ko sénégalais mom yaakaar naa kilifteef gu yomb la ci lo lo lo am lu am nga baye ko lo am jox ko lo koy téré bu mu la ca gis lo koy diggal itam ya koy jitu ko ci jitu ko defé momit nak euh na xamné képp ku fetteerlu né damay ñak kilifa saytaan di sa kilifa rek da nga dem ba teud soxla ko kon ndaw ñi eh, nañu delloo ci xel yi xam dar wésu ko ci ñoo té te ñu ko sëriñ bi nga xamné ñun ñëpp moy suñu sëriñ ndax ñun ñëpp ay dong lañ sëriñ bi de ku fàttaliku guddeem yu metti ya fàttaliku jaar jaar yaag exil baag pamti pamtee jàkk lor gi gi ko woon lor ci wàllu physiquement psychologiquement yooyu yëpp ku koy fàttaliku di ko ñeewant danga nga xool la mu bëggoon nga nekkati la mu bëggoon nag du dara lu dut topp ndigal di bàyyi ay tere. Mm-hmm. def li ñuy wax istiqaama nekk ci ak njub nangoo jaamu yàlla waaye nangoo liggéey waaye nekk nit ku yiw mm-hmm. ku yiw koo xam ne. Euh, bu xëccoo lu ko waaye gën bëgg mu bàyyi ko loolu mooy jikkoy al muridu sadiq da ngay yiw eh, fas yéene saw làmmiñ doo ci génne dara lu ñaaw ngir sagale ko sëñ Tuubaa waaye fu ñu la fekk da ngay ñaq ñaq wu law ngir sagale ko sëñ Tuubaa waaye di nab nab ci jaamu yàlla itam ngir sagale ko sëñ Tuubaa ñu murid nag lay waxal hmm. ndax ñu ngi ci Tuubaa tey hmm. waaye loolu nag mën naa valable ci mbokki jullit yëpp hmm. jamono jaxasoo na coow bari na te fiñ jëm. Hmm. ak niñ koy doxee ni baxut jafé jafé yi am yépp dem bu bëgg roy occidentaux yi bop sa bop kenn ku nek japp ne man nga demal sa bop te nit ñi dañoo soxlante loolu nag faaw kilifteef di am yu responsable faaw ay ndaw am yu nangoo top ndigal buñ ko defee ñu am société bu jàkk. Hmm. macha allah parce que bu boba dañuy dañuy addu Mm-hmm. laataa ah, te bu boobaa dina tax maanaam mu gën a ñoŋ. waaw macha allah euh, sëñ Abdou Karim ñu gis ni am na ñaar yoo xamante si mënul ñàkk ci dund doomu aadama waaye am na lu leen boole waaye am na lu leen xaajale. Mm-hmm. muy politique ak diini. Mm-hmm. dafa mel que ni léegi nit ñi comprendre tuñ ko ni politique dafa am fu mu tàmbalee ci nit ki am fu mu yem. diine nag moom sa spécial dafa lay topp à vie. mais dafa dem ba benn moment ñun léegi suñu seetloo ñu ëpp ci société bi ni ñu dunde dañuy dem ba politique bi la ñuy gën a xool sax ci pas-pas bi. te pas-pas ak politique. bokkuñu lu ñuy dox ndaw li nga xam ne day jaxase ñaar yooyu boo ko bëggoon leeral kenn ku nekk responsabilité fi mu yem ak fi mu tàmbale loo koy wax. loolu dama jàpp ne ku ci am jafe-jafe rek da nga déggut ñaar yi déggoo diine déggoo li ñuy wax siyaasa muy politique ay benn la boo waxee benn nag mën naa lëndëm ndax politique li muy tekki mooy art de gérer la cité bokk l'art de gérer la cité naka la ñuy defee fexe ba penc bi jàkk waaye bu dee loolu képp ci la yonent bi nekkoon yonent bi amoon na armée am organisation bu mat sëkk am ay ndaw am i am lépp sëñ Tuubaa naka noonu itam ñu daan sànce kër yeeg dañ ko daan xaaje def ay kees def fi jigéen ñi yem def fi góor ñi yem wan waxtu lay ubbi génn ci jàkka ji ñu takk sëy jubale nit ñi loolu boo ko booy loolu mooy politique loolu nag diine looloo ko tax a jóg li bon nak moy politique politicien bi nga xamne dafa and ak liñ wax démagogie jakarlo nit diko wax mu leral liñ wax deug mm-hmm. da am ben voix bo bëgg ci mom wala bëgg a dajale ba jox la dara nga dal di jall loolu politique bobu nak moom mënut a ak liggéey ak politique bi nga xamne ne tekki. Mm-hmm. defar dëkk bi mu képp. Mm-hmm. kenn mënu ko dissocier ak diiné ndax diiné daa ñew ngir nit ñi jàkk seen mbir penc bi jàkk bu boobaa nag politique mën naa nekk benn xam-xam koy doxale man jàpp naa ne ku dégg diine xam li politique di tekki doo leen leen leen doo leen taqale ci des nag moom bi nga xam ne koo bokkalut foofar mu nekk sab noon dig nit ki loo xam ne naroo ko mm-hmm. dund ci seen kaw lekk seen alal sàcc li ngeen bokk loolu lépp boo ko boolee moom loolu salte la loo xam ne nit ku yiw sax waru koo jege. kon yàlla nañu yàlla musal. waaye kon li may li may woo ndaw ñi mooy moo xam leader la wala militant mooy ñu dellu ci baatu politique bu baax bi politique bu baax bi nga xam ne mooy naka la ñuy fexee ba penc bi jag su boobaa boo waree paanu mbalit sa buntu kër da ngay fexe ba mu baax. tiwo ndox bi bu dee bënn ci sa kanamu kër ta nga ñent témer téeméer ko défaré mhm. da nga tay japp lolu moy civisme. Mhm. kon civisme bobu moy moy politique biñu soxla hmm kenn ku nekk da ngay japp ni yaay defar dëkk bi. Mhm. soo ko hmm danaka dina dina dina dina dina gëna a ñoom waaw. macha kon boobaa nit ki mëna par waye du par lo ndax li naan euh, ku faru baxu waye kuy par lo da nga yées. xam nga far far mom fédé féete la rek. <laughs> waaw te fédé moom mënut a ñàkk. mënut ndax ba ci diina ji sax. da ngay gis ñu ne la alkutubu samawiya. waaw ne diine yoo xam ne leer na ñëpp ci àlla jugee. Mhm. te ñi ne maa ngi ci lislaam ñi ne maa ngi ci christianisme ñi maa ci juif nga ñëw ci biir de lislaam ñi ne la madhab malik lay topp. Mhm. kii ne la shafii kii ne la xambali kii ne la nangam ak nangam. waaw li muy li muy tekki rek mooy féete waaw féete mënut ñàkk. Mhm. idéologie rek la boo xam ne da koy adopté projet de société bi la nit ki wax ñor la. ay ah, lol nak warut a tax gis abdallah ci mbedd dal ko def am non tay nak nuñ fi nonon to dina ma xawa jaxal jaaxal kon li wax deug ñun bu fekke da nga bëgg a defar. mo hmm. bëgg a defar. nga bind ni la ko bëgg defé mo bind ni la ko bëgg defé defee. te buñ dajé dajee gënante jaasi ñun ñaar ñepp kenn bëggu ci defar. loolu mom kon la leen lañ. kon dama nga kan dañu tek bëtt ci alalu askan bi kon. Hmm. alalu askan wi xajni wi nga bëgg lek hmm. mo la jël faat nit. <laughs> waaye du bëgg a defar waaw de waaw moo la del faat nit ndax da teg bët alal ji waaye boo tegee ci bëgg a defar mm-hmm. kenn ku nekk bu ngeen wutee mm-hmm. da ngeen wute ci gisiin mm-hmm. waaye du ngeen wute ci seen jëm du ngeen wute ci ay doxalin moo tax farfarloo mu baaxut ci fenn. Euh, macha allah ñu fàttali leen euh, spécial tabaski leen am tey ñu fii ci Xayra. ak euh, Serigne Abdoul Karim Mbacké. sëñ bi bala ñu lay bàyyi ci ñu ngi gën a yaatal département bi mën na lu ne xew na ci politique sëñ bokk na ci ñi mujj a feeñ. ci politique ci département bi waye barna ñu xam dañ ko ëmbal lool kersa barna itam ñu xam ci ni ñi ngi wax ci mom euh bo déggee ñu wax lool en tant que doomi dara jo xam di ñoo ci politique comme ñu ko waxee politique ayut mais lool ban conscience la lay def ak après so dogee ba wéet ban xalaat ngay am ci jëf jooju ndax am na ñoo xam ne nañ fi amoon pour defoon fi lu ni ampleur bi topone leen waye tay kenn déggatu leen néew sax looy dugg ci béréb dégg ñu di leen tuddu si Abdou Karim ñëw nag doon doomi daara pour dugg ci politique am ñu bëree bëri sax ñoo xam ne wax nañ ne buñ duggee ci politique sëñ Abdou Karim a tax am na ñoo xam ne sax bu ñu bàyyee fa ne woon a tax yooyu bu dajee ci sëñ bi ba sëñ bi wéet waxtaan ak njëgënaayam ban euh, loolu moom man politique daf ma dab nekkul li ma lu ma def ci préméditation xam ne dama ko waajal am lu ma tënk génn woon daf maa dab ci ñoo xam ne xañ na du xaj ci jotaay bi. du xaj mais tënkandi rek. damaa jékki-jékki rek gis sama bopp ci biir kàmb. <laughs> taxawal ma fi dugal ko waaw xaw ma lu ma ci dugal. na gisoon naa mbokkum mu baax ma jàpp ne war nañoo am suñu fi bopp ma di ko joxoñ nit ñi ba mu lu tuddee ma far mën a cirib ci biir kàmb ko looloo ma ci dugal <laughs> muy lu metti waaw ndax dina jël sa temps mm-hmm. alal ji amul solo waaye dina jël sa temps nit dina la gisee jàppe la noo xam ne euh, diamétralement opposé meloo noonu xaj na bu la gisee miinu la rek eh, jàpp na ne am na barab boo bëgg a jël wala place boo bëgg a jël waaye wuti naag lool li ñu gëm suñu biir nekkul sax lu ma lu ma neex ci benn côté waaye nag lu ma neex la ci benn côté metti na ci noonu ma la ko waxee. Mhm. waaye neex na ci benn côté ndax eh, damaa gis ne fii ñu dëkk dañu war a laxasaayu ñun ñëpp fas yéene jël nag suñu wàll ci li ñu moom ci réew mi. Touba toll na foo xam ne dañ koy defal dara sax dugal ko ci cadre dëkku diine yi dañ koy defal te xooluñu euh, sur le plan démographique mhm. ñaata nit ñoo fi dëkk soxla am ndox soxla ay yoon am ci droit ginnaaw nag ba ñu amee devoir ñoom nag di di di fay ay taxe di participer ci développement dëkk bi. devoir boobu nag moo moo moo xaw a soxla. nit nit nag bala ngaa xeex say droit nag da ngay mënal say devoir. ndax nguur nguur li muy dundee. ci contribution yi lay lay dundee. lamp bu kële sulli bu kii. lamp bi ngay kaas naan dafa yàqu ci mbedd mi. Hmm. boo fay tax nguur gi attanu ko du xaalis buñ denc budget yi ngay yëpp du xaalis buñ denc boo xam ne dañ ko jëlee ci kaw asamaan si teg ko di tibb la jox. Hmm. kon nag dañoo booloo jël suñu kàddu jox ko kenn ne ko wóolu nañ la géréel li ñu war a ñu mel ne ab daayira rek li ñu war a joxe suñu poos dinañ ko joxe waaye bu la ko joxee defal ñu ko fi ñu bëgg. ab daayira nag boo joxee président daayira ba nduggum màggal gi sañ nga ne ko ana ana ana ceebu jën bi bi ñu waroon a togg démb wala nangam bi waaye nag bokk ci daayira bi joxewoo dara boo xëyee dàq coow li laaj ba xam ceeb bi saf na nàngam ak wala ceebu yàpp la ci togg loolu noonu la demee. te bu ñëpp mel ne yow départ du am. waaw bu lépp mel ne <laughs> saf. <laughs> kon nañuy <laughs> eh, jàppale autorités yi ci mel nañu war a mel ba noppi. Mm-hmm. su boobaa nag. Mm-hmm. ñu laaj dañ bëgg war a laaj ñoom it nag ñu permettre ñu ñu laaj leen nañ leen ko war a laajee. ndax kon laajam daa am yoon. waaw dafa mu yoon mooy booy laaj nga teg ko ci xam-xam teg ko ci fa nga ko war a jaare ñoom it ñu yërëm askan wi dimbali leen di leen comprendre di leen bàyyi ñuy def wax seen i seeni eh, i xalaat ci réew mi te nañ ko sentir ci noo xam ne du débordé tam nag eh, ci loolu nag ñu ngi ñaanal eh, suñu président Bassirou Diomaye fa yi nga xam ne mooy suñu. président de tous les sénégalais waaye itam mu bokk ci biir coalition bi di ko ñaanal mu am ndam ñaanal ko itam suñ borom defal ko taw feex di wax euh, sénégalais yëpp mais xaj na cant teel na comme ni ko sëñ Bass Abdou Khadre waxe woon. Mm-hmm. ay jàmbat yi itam teel na. Mm-hmm. mbir maa ngi soog a commencé ñu ci am yaakaar lool nag. Mm-hmm. ci doxalin weeg yi ñu teg kon nañ leen gunge ndax bu ñu amee ndam Sénégal am ndam kon nañ leen ñaanal rek gunge leen man daal maa ngi ciy woo jeunesse bépp ñaanal leen gunge leen te te te déglu leen dimbale gi nag mm, dara weesu loolu ma wax léegi mooy maanaam di fay di fay di fay ay taxes. Mm-hmm. mel na ñoom it maa ngi leen di woo itam nag nañ nañ gaaw ci saafara xëy ndaw ñi ndaw ñi sonn nañ eh, ñu ngi toog ci mbedd yi ba tey te am nañ yaakaar te score bi nga xam ne moo am fii. Mm-hmm. département Mbacké laay waxal euh, yaakaar naa néew du Sénégal loolu nag bëgg ak cofeel gu ñu am ñoom ñun ñëpp moo ko waral kon mm, nguur metti na pression yi metti na waaye nag maa ngi leen di fàttali ndax suñu devoir mooy di leen fàttali ñu ngi di fàttali bu baax nañ geesu ndaw ñi te te tey nekkul lu mën a xaar yàq yàkkamti nañ lool mm-hmm. kon loolu maa ngi koy lancé suñu frère lu président Bassirou Diomaye jaaxaar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko euh, bépp saafara bu ñu def ci ndaw yi rawatina fii ci département Mbacké na nekk loo xam ne lu lu lu gaaw lay doon ndax sonn nañ ci soxla nañ ko. Mhm. macha allah euh, bala ñu tëj ndax xam naa sëñ Mbacke euh, sëñ bi li war a wax lépp mu xajul ci jataay xam naa il mu ñëw ganu mbégte mi. Mhm. waaye demande sociale bi ci groupe WhatsApp bi xam naa jomul yaa ngi siifur. Mhm. waaye ñëpp danaan lan la président Diomaye di xaar ci IDP. ñenn ñi da ngay dégg sëñ Abdou Karim dañu war a faral dana war a gaaw ci birima nangam nangam mm-hmm. euh, ñenn ñi rek léeg-léeg itam ñu am contre contrat yi ci mbir mi sëñ Abdou Karim lu mu jàng ban koy def nangam mm-hmm. ñii ni nan ko def euh, nan ko boole ca ministre conseiller mm-hmm. nangama boo dee déglu yooyu noonu ci dem am social yi nga xam ne ci groupe WhatsApp yi ban ban ban kii lay def maanaam ban effet lay def si yow loolu waaw xam nga <coughs> ñuy wax day wute xaj na waaye ñi ñuy wax comme demande sociale ni nga ko tuddee seen yéene ak xaj na bëgg ak yéen département bi rek moo tax ñuy ñuy ñuy waxe noonu waaye xam nga bi ñu xam ne ñu ngi dugg ci coalition Diomaye président dañoo amoon yéene yi defar réew mi ànd koog le président Birima Mangara suñu borom dogal ci lim ci dogal ñum tànnee ñi fi nekk ñëpp ba natt leen ñoom it ñu sollicité ko nag seet si ko mu xam ne ñi ko seet ñëpp ñii ñëw ko ci gën a doy seen programme moo gën a nuroo ak programme moom daanaka benn la mu tànn leen jàppale leen sans condition kon ba mu fay dem amul lum ci xaar euh, te it jàppale ab coalition du forcément nomination en tout cas Birima mi ngi ak xam-xamam mi ngi ab yaram ab taalibe la Sénégal ko ñor te niñ koy doxalee xam na ne ngi ci yoon wi fu ko Sénégal woo rek mu wujji foofa. amul lu muy yàkkamti amul lum ciy mer amul lum ci eh, loo xam ne ma ngi ko cay laaj eh, ñu ngi ci liggéeyam ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey ñi nga xam ne bëgg ñu am ay nomination ngi di ñaanal di di sant xaj na ci yéene ji eh, njàng moom ñu wax nañ dëgg xaj na sama njàng soriwut ñi gën a ñi gën a néew xam-xam ci laa bokk xaj na ñooñu loo tax ñuy wax loolu ànd naa ci ñoom sama njàng moom soriwut te it eh, man dama jàpp ne mën nañu liggéey réew mi ci facette yu bare bare bare te doo am nomination ñu koy waxit nag ànd naa ñoom ci loolu di di dëggal seen yéene eh, du ko weddi di leen ci di ko rafetlu waaye am na feneen fu gën a mag nomination fu ñu mën a liggéey réew mi li mun ñu falu boo àndeek ab coalition da ngay laxasaay rek toog fu ñu la woo nga dem liggéey réew mi buñ la fa jëlee teg fa keneen nga xam ne noonu la réew di doxee waaye daal ñun amul lu ñuy amul lu ñuy mettitlu ñu ngi ci ñu ngi ci jàmm. yaa wax ñu daal ñu dal te tee. ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci biir coalition bi ñu ngi liggéey lu tax mu am ndam euh, kon nañ nañ tey rek. donte département Mbacké moom daa soxla ay nomination yu bari loolu mooy demande sociale bi dëkk bi toll na ni te fi ñu war a jàpp dafa bari. te du du du du mën a yem ci kenn nit ñaari nit ay cadre fi yu bari moo xam dañoo bokk ci PASTEF wala ñu bokk ci UDP wala ñu bokk ci yeneen parti euh, ñu ngi fi ñoo xam ne buñ leen faree fale itam ñu ànd ak ñoom gunge leen rek. Mhm. kon tamit maa ngi koy fàttali président Bassirou Diomaye Faye cadre yi nekk PASTEF ak UDP nekk fii téye coalition bi ñoom it nañ leen wutal ay poste yoo xam ne. dinañ fa mën a liggéeyal réew mi liggéeyal mhm. ak ñu lay nett li ñu ni séddale benn. <laughs> loolu day wolof la moom. <laughs> Ah. aca bi ñu sant la bu baax gërëm la li ñu war a wax jeexul waaye li ñu cëree ci waxtu jeex na xam naa moom beneen jataay bi moom mm-hmm. il faut nga ñëw restaurant mbégte mi ci émission bu bees boobu mm-hmm. ñu bëgg a wax lépp mm-hmm. su ko defee ñu gën ko mën a yaatal lii tey spécial euh, siyaar la woon rek ci spécial tabaski bi moo tax am na détails yu bari soo xam ne dugg ñu ci donte soxla woon nañu dugg ci waaye dañ koy siraamtal ba yàlla def nga ñëw foofu ak jàmm ak salaam kon ñu bàyyi la nga def tàggoo bu du tàggoo euh, maa ngi kon di santaat ñëpp rek di ñaanal ñëpp di la sant bu baax di leen di leen gërëm di la wax ne sànce bi rafet na. jërëjëf Mbacke yow laa ko tuddee eh, alhamdulilah di ñaanal mboolem ndaw yi sama moroomi ndaw yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo man di ma xool di leen wax ne buñ découragé yërmande yàlla yaatu na. proverbe bi may bi may di wax rek. Mhm. ginaar lu ñuul ñuul mën naa ne nen bu weex. waaw ginaar. du mhm. ñuulaay ba dër dër mën naa ne nen bu weex kon boo mooy boo xëyee rek mën naa baax. nañu wóolu autorité yi te gëm seen bopp euh, te xam ne yàlla baax na kon maa ngi leen ñaanal ñoom ñëpp suñu borom faj aajo yi jamono ji metti na tar na kër yi metti na ni ñu dundee ci biir metti na da gis ndaw loo xam ne bu xëyee dépense sax mënu ko am te fii amul ay liggéeyukaay njàng mi taxu koo demee noonu kon maa ngi jàllat ci loolu di woowaat le président formation yi. na na gaaw ñu forme leen ñu mën a am métier waaye ñu accompagner leen bañ mën a liggéey lu ñu yóbbu ci biir njaboot ga garder seen dignité garder seen seen seen ngor ndax jamono ji metti na lool xam naa ne xam nañ ko waaye maa ngi leen koy maa leen koy fàttali di di di di wax ne nañu nañu nañu nañu dal incha allah lépp dina baax bu soobee Sëñ Tuubaa jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Abdou Karim Mbacke euh, moo doon àddu moom Serigne Bassirou Mbacke ñaaxeen euh, moom Serigne bu sa Dieng moom Serigne Fall moom Seexul Xadim di kenn ci département bi ci taxawam ak i engagement nekk PDC itam diwlin Binta di employé ay ndaw yu bari ak yeneen facettes yoo xamante si ni moom mii moom mu jiite liggéey boobu waaye ci biir liggéey ba ngeen gis ko sant bi bu yegsee ci bunt bi la koy bàyyi waxin la nag ba def li mu war a def ak ñi nga xamante ni Serigne bee leen booleeg moom rawatina ci liggéey. bu nu génnee nag kenn ku nekk doo ko xam sa cër ki moom ngeen ànd di ko doxal ñu sant la bu baax sëñ bi ci loolu nag di la ñaanal yàlla gën laa sàmm gën laa taxaw ndax département bi bàyyi nañ la lool xel ñu ngi lay ñaanal yàlla sàmm la te lafal la cat xam naa li des ci jataay bi dañ koy bàyyi rek ba mu ñëw ci beneen jataay bi tey li spécial la woon rek sunu fête tabaski bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dig daje ci yeneen jataay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf